ñu ngi leen sant bu baax a baax parce que ñu ñuy jàppale ci liggéey carpinterie carpinterie bi waaw trade fair bi yi ñuy def nii dañuy gën a motiver pour ñu suñu liggéey gën a jëm ci kanam daal. liggéey banta neexut ah, foog nga jël sa time foog nga jël sa watu foog nga xalaat bu baax nga mën a defaat lii yéen nag ngeen defaree lii mu nga xam ne soo ko seetaanee da ngaa foog ne lii liggéeyuñ ko Gambia. waaw lii. xam-xam bi la rek ndax nit yu bëri dañuy dem di jënd euh, ready made te fii Gambia made in Gambia luñ fiy liggéey léegi moom moo gën foofu euh, ready made bi waaw ndax dangay gis ni lii ay xale yu ndaw skill bi ñoom ñoo ko liggéey président our scheme PIA xale yi fa nekk ñu leen di train ñoom ñoo ñoom ñooy def lii ngay gis nii ba pare ready made bii ñuy jënd nii da ngay gis ni suñ ko jëndee su defee three months one year ñu isi laaj ñu ko fay ñu pour ñu liggéeyaateel leen ko. léegi na nga gisee foire bi. waaw foire bi moom nu mu gisee baax na trop daal baax na pour économie bi baax na pour xam-xam bi nit ñi gën cee kii daal gën ñoo xam ci carpentry bi ci lan la ñuy yëngu daal. wax ñu fi nga daaneele sa kàddu bi. fu may daaneele daal di santaat euh, government bi di sant euh, mboolem client bu nga xam ne yaa ngi ñëw fii si trade fair bi di ñu laaj di ñëw di ñu jënd si. ak di woote di woote daal bépp client bu nga xam ne yaa ngi ci réew mi képp ku mu mun a doon nga ñëw seet si lii ñuy def nii lu nga xam ne capinte yi nekk Gambie ñu ngi koy def fii si trade euh, fair bi loolu daal laa amoon lu ma wax di leen sant di leen gërëm daal. jërëjëf Ousmane Sow. ne yéen ak ñoo seetaan tey ñu ngi fii nii ci suñ bitik bi fii ci GRTS ci suñ shop bi bii 39 képp koo xam ne ni yaa ngi ci trade fair bi te bëgg ngaa bokk ci advertisement yi nga advertise shop wane yi nga xam ne ni moom nga am ñun pare nañ pour jàppale leen ñu ngi am fii nii suñ stall bi ci bii 39 boo xam ne ni dinañ leen jàppale ci boot left and right naka nga buggee sa baga si jar ba tax na nag ñu ngi wax ne am nañ si rate bu nekka soo buggee 3 minutes mun nañ la ko jox si 3540 soo buggee li nga xam ne ni mooy minutes mun nga koo am ci 5900 5900 boobu noonu nga wax li nga xam ne moom nga am ci sa bitik bi yëpp mu neex lool waaye xam naa la nekkul ne TV bi rek a fi nekka radio bi tamit mu fi waaye ni ñoo def rek mooy ñëw leen ci suñ stall bi nga xam ne ni mooy bii 39 lépp loo xam ne moom nga bëgg rek di nga ko fi am jërë ngeen jëf léegi fu mu nekk nii si GCCI slot bi ñëwaat nañ si bitik Moroccan bi ba nga xam ne ñu ñu ngi jaay daala leeda ak um, bagage yi bari. Ndella léegi wax ñu fii nii uh, ban façon. bagage moo fi nekk ah fi bagage yu eh, marocain moo fi nekk ay eh, bagage yoo xam naa ne moo ngi jógee from Maroc mais léegi la véritable cuir léegi am na ay daal saayis pa am na daal size brada yi pour xale yu góor yi n'importe quel bagage daal mais from Maroc la because bi mooy sunu first time ñu ñëw Gambia ñun ñoo leen poussé sax ñu wax leen na ñu ñëw Gambia parce que xam nañ Gambien yi ñoom bëgg nañu port lu rafet daal bu nice belt ak yëpp léegi nag naka living business bi nag. Ah, premier jour bi dematewul woon noonu amoon nañu tiitaange waaye léegi soo gaa yaa ngi ñëw di jën li ñu mën noonu mais guddi gi lay gën a dox. waa léegi soo seetaanee euh, daala yi ku bugg a jënd euh, lan la lan la war a garder si euh, si bi. si poosam bi boo ñëwee dañ lay wax first price one thousand la ñu fay la eight bu fekkee da ngaa bëgg a jënd lu bari seven lañ lay jaay 700 hundred xam nga loolu am na ñu ñëw jënd ñent juroom juroom ben 700 hundred lañ lay jaay mais bu dé par ben eight lañ lay jaay belti yi foo la Ramata naka njaay me fi ni Moroccan shop bi ah comme deera ni ko waxé rek affaire baa dox de goudi rek comme six yoyu goudi lay gëna dox wa affaire baa ngi dem wa légui nak nga gisé Gambian ni ñi nga xamné dañ bëgg fashion dalay rafet wa gaa ñu ngi ñew ñu ngi jënd wa am na ñi jënd ñaar am na ñi jënd ba ñett gaa ñu ngi ñew di jënd wa na na ngeen gisé foire bi. ah foire bi mu ngi ki mu ngi dem mu ngi dox wa affaire baa ngi dox wa ok la légui sa sa cadeau sa cadeau ju mujj mu waaw. nak la ci bëgg so doli Gambien yi jàppale ñu ba ñëw di jënd ci dàll yi parce que dàll yi layda la léegi ñun luñ bëggoon pour bu affaire bi doxee léegi ñii mun ñoo ubbil shop fii fii ci Gambia ñu am fi shop parce que am nañ Sénégal am nañ Maroc mais fii amaguñu shop fii daal bëgg nañ fi shop soo Gambien yi ni ñuy jëndee bu ñu continuer noonu soo ñun dinañ fi am shop te gis naa ne lu rafet lay doon dina baax ci économie Gambia. Ndella Wada jërëjëf. waa baax na ñu ngi wax gaa ñi ñëw jënd waa comme que amuñu waa ñu ñu jënd yu bari leeda la leeda la dafa baax. well that's all what you heard from the uh, business operators here um, at this shop. Um, everyone is trying to encourage uh, the business, um, the operators um, to come forward and buy. And this is where we also draw the curtains for this segment of the GCCI sponsored um, program uh, from the trade fair here at Independence Stadium. My name is Ibrahim Baldi. Thanks for watching. jollo ɗi ka yeltinoro jaade télévision ti gambia ɗi ka mi kan mañume kono nde kano arabano sanbe ka mi keno eleɓe eh, kartati maskudayi kon kan mañume mo fonko jollenorom ɗe kullen danta eh, jaatidi kami kewke jommi ɓadiyankone souleymane diouf ombo kañane kamayak eh, idrissa balde ombo kañane karudok bukutu kankam mom borok ɗi aic jamaji jokkuñatade wono nden ña si aydi kade si vodas kade o see sani yeke nya ja sonu jibe mike sebe kana sa jimmi be jat ku lede ngarso ban elebe kata rinding o fujum feti anosan mujaw o leb karta mba bojo to jawe bunu jebe leb karta jayonu jebe mike eh, di pop eh, wakam broko beti konsulo kan jebe mo kenale nyamani jebe kane waye mi kanon mitare panikati manku mik ɗe moyo manko régolade majjum e dia woni joɓimi ka kon kate sofña e votas kate sofña kono e jinjim kana peeja kulede garso sosne ne jaata table tuña woni joɓe bikkeɓe kana manko mañina fani toon ko jaa ko gar so votas kate soole so lebma soole se carte manko golen ko leeb eh, ko gartuja otole ngone kule leb kata wala ngone ko foli fu lata foli di kapana kati e eh, kam kere kere bukana kaje be rungi di maskuna e kun ka eh, suleiman o mo na pa sanke ja eh, corona ili pa sanke la ko fulo nyata de ja sun sun jofam sanke ko jamta wan jabe kana ke nukata kata suleiman ma tila pa no kinu suleiman ah benadet um njike chanu soki timba timba um, ehm, pagayom kalon ana me mputu ka sinjanni tika siden fioi uh, ah, paka no paka ne chukele fio nu pihina paka ti IEC Independent Electoral Commission um, ehm, hambat na tuoni ngan kasokia Alhaji Mustafa El Keriol akna ponyi uni uke kubat na lu fioi ni ne aka siden kuno men ke fibo ni sisi ke banka ken kai nolen ke kubne ke kang ya kapso kalu ning wateti nuwanta ante fe hime ti um, April ni taga kunonko pakil ufu iti ya bukai wantu karte pour eh, en kasuga local government election iknem pour councilopa eh, yema ponjunu po katata meyo painga fuka wantu kate kan film po katata meyo bahani kabi eh, yama kuno mkege musenga nyisoga ni nanu ka sidin ka ku ka kutoni le nimpige kangpa kena njime me nisiese hankasoke bare fiyo IEC kaituni ton kabisan alwoni wahankasoka supplementary registration ekna IEC nkat kaisanaluni etetako kenge pour usoguma wantu e wantu e karte fa ye uh, e. e, supplementary register ne mning wati wati nulahana pour hi wantu karte ti wati wati nu ito ito opuso ku yangangan pangamani man uhitwa uti uchimwechim man pake pake katagit hinu mitago upuka uputentem fani kabini hitago uh, e, uhit katimbiga ini hi wantu bartembe utu ito opuso kekena ufu ito la laman hinomi julio nikai anone ke kahitka inke apka wantu kahitka kiti uh,